alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma man la Cheikh Babacar euh, Dieng nekk euh, muxaddamu Baay Ñas ngi liggéey ci tariqa tijaani yàlla tamit dimbale may yëngu Euh, ci euh, rajo Alfayda FM bi nekk ci Kaolack euh, samedi bi passé mbir mu doy waar dafa am ci capitale Saloum mooy lakk bu metti bu am ci marché central bi fi ñuy wax mbaaru fugg jaay laalaale mbaaru effet ak mbaari jën ci Kaolack waaye kéemaanal suñu borom feeñ fi nag loolu yëpp day gën a dëgëral waaye day gën dolli yaakaar dolli ngëm njàngale mag ñi ak tegul ci yoon lan la mën a jur mooy vidéo bii ngeen gis ci suuf benn téere xasaayit boo xam ne mbindam Cheikh Ahmadou Bamba ku tedd ki moo ci nekk fi ñu ko fekk ci biir mbaari fëgg jaay mbooleem lu ko jege woon lépp lakk na li tegee ci kawam ak li nekkoon ci suufam ak li ko féetee penku li ko féetee xarfu lu ko nekkee bër ganaar lu ko nekkee bët saalum lépp safara si def na ko doom mais téere bi amut cerce sax boo xam ne lakk na ci du mbind mi nag mais photo Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom mooy couvrir téere bi moo tax kiraama googu fenc téere bi sax su amuloon photo mën nañu sikk ci kan la mais leer na ne euh, mbindam Cheikh Ahmadul Bamba la Xaadimul Mustafa loolu nag day gën a dolli yaakaar nit ñi waaye day gën a dolli yaakaar ni nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum euh, soufisme te gëm li nga xam ne moom moo di tarixa ndax koo xam ne ay waxam photom lañu jël def ko ci këyit ak ni këyit sensible ni mu mënee lakk ak ni safara doyee waar ak keroog lakk gi amoon ci Kaolack li fi li fi euh, safara si def mu tëb mbindam kooku ak foto kooku day màndargaal na kon kooku dégg ko gëm ko topp ko ànd ak moom doy na yaakaar ndax nag ku lakkul ci àdduna doo lakk àlaaxira mu doon kéemaan bari yoo xam ne dafay gën a màndargaal ne mbokk yi jaar ci yoon rek moo am solo waaye nag jokk ci ku jokk danay tax a jokk wéeru it mooy lu gën a wóor yàlla may dégg ak topp dimbali ñu ñaan yàlla tamit mu fayal ñu mag ñu baax yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm am nga nag su ko keneen waxoon ku bokkul ak man mun nañ ne ah kii daal murid la rek muy wax waaye man taalibe Baay Ñas la muqaddamu Baay Ñas la waaye nag wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa kenn du seede loo xamul dara te comme lii maa ko fekkee moo tax mënoon naa def vidéo bi bismillahi kon ndénkaane yi ci ku tedd ki la bàyyeekoo sëñ Tuubaa mu njëkk bi mu ne ku bëgg a bëgg mucc nay julli ci waxtu ñaareel bi soo bëggee mucc ak ku la gis bëgg bëgg la soo bëggee mucc ak ku la gis bëgg la deel bàyyi ba guddi ngay def naafila donte ñaari ràkka la soo bëggee mucc ak la gis bëgg la deel ba guddi ngay def naafila ngay naafila donte ñaari ràkka la ñetteel bi soo bëggee yokkute del jàng alquran foo nekk soo bëggee yokkute del jàng foo nekk ñeenteel bi soo bëggee wérgu yaram del bëggee wérgu yaram del woor juróomeel bi soo bëggee loo bëgg am ko del saxoo astaghfirullah soo bëggee loo bëgg am ko del saxoo astaghfirullah juróom benneel bi soo bëggee sa jafe-jafe yépp jeex del zikkar mel ni laa ilaha wala allahu akbar wala subhanallah juróom-ñaareel bi soo bëggee barke deel sax salaatu ala nabi sallallahu ala muhammad wala allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim juróom-ñetteel bi soo bëggee say jafe-jafe jeex del sax ci la hawla wala quwwata illa billah soo bëggee say jafe jeex del sax ci laa ilaha laa xawla wala quwata illa billah laa xawla wala soo bëggee am loo loo bëgg soo bëggee am loo bëgg nga am ko te doo sonn soo bëggee am loo bëgg am nga am ko te doo sonn da ngay yónnee message bi nga bañ koo tàyyi pour yow kese nga bañ koo téye nga bañ koo téye pour yow kese nga def ko sarax bu sax ngir yow ak say waajur ñaanal nit ñi ñëpp jàmm ak sutura ak xéewal bu sax mu nekk tamit euh, taalibe ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane Serif euh, radiallahu wasilam di alhaaj Malick ak njabootam euh, mu nekk nag ab miracle maanaam kawteef gis nataalu njabootu Serigne Touba boppam ak njabootam feeñ fii ci seen biir kër ñu bëggoon nag yow nga wax ñu sa rek ak mbir mi kañ la door parce que ñu ngi naan ci biir semaine bi yëpp gis ngeen nataal yi di feeñ fii ci biir euh, kër gi. man Fatou Mbaye laa tudd waaw doomu aji soxna Mbaye El Hadj Boubacar Mbaye waaw daal am na ay ñeenti fan yooyu sama jabaru frère bi ñoom dañoo jëloon conseil ñëw fi doom jee jongoon léegi muy julli timis bu mu jullee ba sëlmal daal di koy gis ci rebooru escalier yi léegi bi mu ko gisee mu ne lii de sëñ Touba lay nuróo léegi sama doom bi fekk ma si kii bi fekk ma si sama pero ni ma yaay da tànn na fi nee na ki mu gis sëñ Touba lay nuróo fekk maa ngi defaree ma defaree pare génn daal di koy xool daal pour pourtant wax na dëgg lii de nataal sëñ tuubaal mais heure bu ñu xëyee day gën a leer journée bi yëpp moom du nëbbu benn yoon guddeeg bëccëg heure boo xoolee ni da ngay gis mu leer nañ léegi nag sama raqu yaay ñëw fi fekk sama yaay si buroon xam bu jógee jàmm nga ñëw fi ma ne ko tànt kaay ziar seen sëriñ bi dafa feeñ fii mu commencé di jooy ziar ba pare commencé di jooy sama frère bi ko xaaral ma filmeel la ko daal di ko koy jëlal photo bi yëpp mu daal dem léegi na moom bi mu demee génn la ko wax nit ñi ku romb la duggal ziar ci la xale góor nag commencé jël ko seen portable kenn ki moom da ko portable dem labo tiire ko moo moo nekk nii daf ko jël ci portable am dem labo tiire ko loolu le 5 la woon. la demee la ba tiire ko. léegi la cinq le cinq la woon euh, octobre la woon ci la ci la nit ñi ñëwee kii noonu ci lañ ci la ko xale góor yi fatoo nii. léegi nag démb démb la 6. démb am ku ñëw fii di ziar si ci ngoon si. ñu toog ni sama benn xarit a am keneen ku mu indi muy ziar mu toog nii di ziar ba ci yàgg daan na yënde da ngeen a wax sëñ Touba rek ma feeñ mais sëñ fàlloo gi nii. léegi bi mu nee sëñ Fallou nii. ma daa jug xoolaat daal di gis mu xam du bi ñu bind ko mu leer nañ ma woo sama frair bi moom mooy jiite fii si jàkka ji fii. nu tudd moom. Pambaay Pambaay waaw Momar Mbaay mais Joos Mbaay nañuy wax moom la ñu miin mais Pambaay la tudd ma woo ko fekk mu ngi bind fii mu ngi yor àlliwa bi di bind fii ci peram ma ne ko Joos Joos mu ne maa ma ne ko daw sil xool mu ñëw ma ma ne ko xoolal mu daal di xool daal di waaw ma ne ko gis nga Mouhamadou bi ni mu leere mais après Mouhamadou am na yeneen ay araf yu ne ci biir boo xoolee ni ba tiim ko nii da ngay gis yeneen ay ay kii yu arxoraan daal yu ñu bind noonu léegi ñu daal di bàyyi dem ma xëy nag mu gën a leer sama doomu frère bi moom maag papaam ñoo bokk ndey ak baay moom moo topp suñu taw mais moom taalibe murit la moom xaadim kii xaadim la tudd léegi mu ñëw ziar si ànd ak beneen collègue am ñëw ziar si ba jug ma ne ko xaadim gis nga li ma gisaat mu ne ma ma ne ko xoolal bu baax xoolal seen fàll bi mu ngi ne si la ko kii ci portable mu ngi ne rek si kii am si la jël foto seen fàll bi ak Mouhamadou bi ci ci portable léegi nag am ko fi ñëwoon doon euh, ziar si waat ñu won ko ko xam naa moo génn gis nga. gis nga alxuraan ci la nag ki ko ki doon toogoon fi doon ziar si xam na moo génn nag wax ko nit ñi ñu daal kër gi feesaat dell. lu mel nii est-ce que mos ngeen ko fi gis ci biir kër gi. non mais nag mais nag dañ ci wàcce kat sama frère bi ma lay wax ne jabar moo ko gis bi mu jëlee congé heure bu xëyee day génn kaamiram jàng jàng jàng jour avant bi ma xool bi mu tëjee kaamir bi te suba sa la la la kër gi feesaat del moom heure bu xëyee day jàng kaamiram moom ñibbi na. donc daal nekk na loo xam ne boobu bëlee léegi nit ñaa ngi ñëw man daal man daal sëñ bi damaa bëgg bëgg naa ngi ñaanal ma ko bëgg naa doon murid daal. Euh, ndax moom rek laa bëgg de di ko wut di ko sàkku waaye ba fii mu ñu day wóoraguma ni murid laa ndax xam naa suñu Muntaxa mii day kuy toog ak moom ah mu teg ak ah, man de man de sama xel dalagu waaw moom fa mu teg ak murid motugul sax fukki fan ak nangam am ku ma tooñ foofu tooñ gu ma naqadi lool am ku dem wax ko suñu Muntaxa mu bu guddi mu woo ma ni ma diw de tooñ ma ne ko waaw ma ne baa naqari wala ma ne ko naqari dama mu ne ma kon si murid des na lu bëri bëri mu ne murid fekk mi ngi mer ndax xam ne des na lu bëri bëri bëri moo suñ sëñ sëñ sëñ ko sa yomb naa nee na murid fekk weesuwul mer na xam ne des na lu bëri loolu day suñ ko sa yéen yéen ñi xam <laughs> ah yëngul de waaw ah. eh, tellement naturel boppam eh, ni sëñ bi ko jox ab lim ci xaalis mu génn rek saa ko sonal ku ci xotti yéreem dóor ku ko ko te kooku suñu Mahmoud gën a waxoon rek mën na koo liggéeyti waaye bàyyi ko moom lu ko neex mu def ko bu mu ñëwee ci sëriñ bi nag bi nag suñu toog ni ko Mahmoud lu la nii mu ne ko li ma joxoon teel ma saa saay toppi rek mu ne ko tax fëy ko meru ma am meru moo tax te yooyu murit ah murit sëñ Muntaxa wax na ma ni ma boo doon dox di dem rek ku ñu doxee la gannaaw dóor la ba nga daanu soo gëstoo ngir xam ku la dóor rek fa ñu ko ko soo yomb na ñii li ma ko waxee mais boo gëstoo ngir xam ku la dóor rek fayu nga boo fa yomb doo tàmm boo suñ ko sa jël loolu yombul man de man de moom ko wax am na bis mu ni ma ne la wóor ni seet yaa ngi gis gis ko doomu aadama yi mais seet yaa ngi gis seen ayib seen i sikk na nga xam ne amagoo benn tees yàlla mu ni ma yàlla bu la baax li dëgg dëgg baax du la gis ayib bi kenn du la gis sikkub kenn moom baax ki man daal ah man de ma ne ko man de Mbàkke man sax murid saadax man <laughs> waaye ndem murid ordinaire am na rek ndem ordinaire bi sax am na ñaan yàlla doon ordinaire murid rek xam nga tey ah, bëgg nan bëgg nan bëgg doon saadax rek ma yombul waaye nag nan bëgg rek du du bëggul du wut ah, ma ne kon nga dimbali nu ci ah, mu ni ma yombul ndax eh, sëñ moom Diop daal nee na moo ko wax ni ko laa na Cheikh Rafal diggante murid sadiq ak wali yu kaamil na mu demee mais ni ma mboote bi ñuy bootee wali yu kaamil ba ku ca boot murid sadiq benn bët teg mboote ma xaar mais Cheikh Rafal la ko ñu naan mboote bi ñuy bootee wali yu kaamil ba mu fex ku ca boot murid sadiq benn bët teg mboote ma xaar comme sadiq moom murid sadiq moom day <laughs> ah, waaye nag. Eh, yàlla gannaaw bëgg nañu ah eh, yàlla nan dafa njort rek eh, man mii dama ko ba te jii fii rek am na ñett ñi ma muri saa rek ma ne waaye xam naa ne man xam naa sama bopp waaye nag ah alhamdulilah ndax waxi muri ji xëy na loolu ci ñun waaye daal mu ngoog daal yàlla na yàlla dimbali te des na rek muy dëgg dëgg taalibi Serigne Touba nu dund gi Serigne Touba dee gi Serigne Touba dekk gi Serigne te ñaan nun ñaan ñëpp ngeen ñaan yàlla bu suñ dara génn yàlla ba suñ dara gën a sëriñ bi yàlla ba suñ dara gën a sëriñ bi wàcc wàcc boobu mu ne wàcc na ko digg ma borom ak bindee fi nañ yàlla noonu ca wàccaale moom sëriñ Tuubaa ndax nee na wàccoon ak yàlla wàccoon ak bindee fi mais ni ko laajee yàlla noo wàcce ko yàlla li mu mooy lu mu digle def naa lu mu tere mosuma ko def lu mu dogal neex na lii laa wàcce ko yàlla mbindee fi rek mu ni mu ni wàcce ñoom mooy mosuma tooñ kenn te ku ma tooñ naa te lu am bokk naa ko It's you have to go out. You, are now, you are missing our religion and it's not allowed for you. Go out. We ask you to go out politely. We, they call the police and you have to go out now. Okay. You have to go out. You are not a God. Not allow you, not allowed for you to be here. there is a section for women. You can go there with uh, good clothes, not like this also. And look what you do. Your coffee here in the mosque. Yes. Yes, it's not allowed for you. Okay. No, it's it's you. You also you also you see what you did. You see you see what you did. Okay, you have to go out. Okay, they call the police now. Okay. sorbind a long. זאת מעצר בחסדיה. שלום פנינה. שוטרים ולכן. המון תודה, המון תודה שוטרים. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaat Touba ak li ko wër président Bassirou Diomaye Diakhar Faye alias Ba Faye wàññi na mburu fii ci Touba ak li ko wër pour Baye Cheikh lay wàññi leen mburu jërëjëf Jumaay Fay jaaraama Ousmane Sonko o fogole séeréer a simna nun ndiki atinam kaani le kam bëgg ñaam Jumaay daa bëgg mburu o fogole séeréer séeréer la day bëgg mburu moo tax mu wàññi mburu mburu mi ne da koo teg ci bakkanam ne wàññi mburu far fort fara fort doole mbaam wàññi woo mburu ñu rëq sa ndigg ba tax na fii si pour Baye Cheikh lay wàññi nañ mburu seera baa ngi nii Moustapha wàññi li nga xam ne mooy mburu kon nag Moustapha waxal ñu dégg nekkul sa gémmiñ di nga wax bu baax <laughs> nit ñi dégg ko waxal waaw mburu moom incha wàññi nañ ko waaw waaw lay jar kon nag tàccu leen waa Touba wàññi nañu mburu ah, mairie tàccu leen mairie tàccu leen wàññi nañu mburu Baye Cheikh lay wàññi na mburu Baye Cheikh na mburu waaw waaw na mburu waaw mburu maa ngi nii wàññi nañ ko baa ngi nii wàññi nañ Baye Cheikh lay wàññi na mburu maire yaa ngi ne patriote yi comme ni mu leen ko waxee woon ci four bi pour mburu dugub mburu Sénégal bi donc gars yaa ngi nii formé nañ leen ba pare ñu ngi ñëw di ko dugal donc je vais prendre comme ça ok. a ngi nii mooy defar affaire yi donc man ni ma leen ko waxee woon. donc maa ngi ci benn village instant yi pour dugal léegi ñaata temps lay durer nii pour mu pour mu du yàgg. moins de dix minutes mu ñor ok. temps maximum bi ay dafa tàng trop ci biir. parce que premier chauffage ok ok d'accord gars mi noonu ki may Baye Fall mën naa ne. mën naa <laughs> te dafa war a nekk. donc mi ngi nii fii lañ ko def fuur bi gaa yi ñii ñëpp toog di xaar gars toog di xaar incha allah ñu tàngal jox leen ko ñu xewlu suba incha allah gars yi ko waas produire formé na ñi muy formé ba pare Paco <laughs> borom dëkk bi <laughs> donc mi ngi nii. ni ma la ko waxee laan koy waxawaatee dama ñëw fii nii former fi ay jeunes pour ñu am liggéey nekk ci tool bi vraiment bay Fall nekk sénégalais boo xamante ni. dafa xam affaire boulangerie xam affaire four di ci former ñu bëree bëree bëri donc ñi nga xam te ne dañu bëgg lu mel nii dañu bëgg a def li seen tool dañ ko bëgg a def seen dëkk bëgg a def boulangerie def fuur mburu ban bu neex boo xam te ni mburu dugub la bu ñu jaxasee ak blé nga xam ni mburu bu diis lay nekk buñ ko contacter waxtaan ak moom mu defaral leen même chose donc dugal nañ mburu bi dans dix minutes mu ñor ñu génne ko incha allah ñi fi nekk nii ñëpp mën a xéewlu lekk bu suur demee nag ñoom ñu commencé seen production ci marché hebdomadaire bi déjà am nañ ay commande jaaykatu ndekki nekk fii yëpp commandé nañu pour suba ñoom fii lañ jël seen mburu donc tey 5 heures du matin la ñuy yeewu jëndal naa leen ay saaku farine jox leen ko donc ñu commencé incha allah daan ci seen doole donc in ak levier rek yëpp tey laa jóge Dakar indi ko ñu def ko fii ñu commencé daan ci seen doole donc ma koy def ak plaisir nag donc ñi nga xam ne dañu soxla loolu bëgg rek liggéey te nekk ci benn dëkk mat jeunes yuy ànd 2 3 4 5 nañu booloo xool nu ñu organiser woo wax ak moom mu former leen tabaxal leen fuur bi ñu am seen liggéey bopp di gañeel seen bopp entreprendre départ c'est très important ñii ay jeunes lañu kenn ki am na jabar ñeen ñaan amuñu jabar mais lii buñ ci jàppee di jox fii mburu bu yàggee tat dara ñu ñu dem ba am nañ am mën nañ am chaîne def ko ci yeneen dëkk yeneen ak yeneen ak yeneen donc dans dix minutes mu ñor après on booy lu ngeen di xaar mburu mi mburu ngeen di xaar ah, ok la séeréer day bëgg mburu dëkku séeréer séeréer day bëgg mburu lekkatu mbaru yaa ngi nii. ah kay dëkku séeréer séeréer day bëgg mburu day filmé ne ma. alors ah macha allah. Ah, hmm. oh non. oh non. eh mais du ngeen tàccu du ngeen tàccu lii. li mën naa ne ah mën naa ne ah mën naa ne macha allah plateau Souleymane cak cak jàppale séri si kontaan nañu alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا